acca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokku internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci delluwaat rek ku nekk sa wàccuwaay amaat lii di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral di def saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dalal ci biir site bi rek saa su nekk damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam di ci yaatal bu baax a baax nee naa leen jëmm jii nag saa su nekk du fi jaaree. da ngeen koy nam ba da ngeen di bëgg du fi gëj ndax xam-xam bi nga xam ne da koy wesaare saa su nekk kooku mooy docteur Mouhamadou Wade aja dinañ waxtaan ci ponk yu sakkan waaye lépp rek ci xam-xam lañ koy wér ni ma ko waxee saa su nekk xew-xew jamono dinañ ci yaatal bu baax a baax nee naa leen ku déglu rek ni nga dégg waaye ci kujje langue politique bi ci leen ci yaatal laata may dugg suma biir programme di ci yaatal wala ma ci wax li ñu war a waxtaanee kilifa gi damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan wi bisimilah. maa ngi lay fay di la dellu nuyu. di la kontaane di la jërëjëfal di la ñaanal yàlla jàmm sama tawfiix di nuyu saan daale di nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci biir réew mi ak ti réew di leen dalal jàmm ci kër gi di leen naan bismillah jërëjëf euh, docteur Mouhamadou Wade ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw euh, seen yooyu set yooyu tànd ak dal ñu ci kontaan bu baax dinaan la dalal jàmm aj fas yéene waxtaan ci xam-xam lu toll ci fukki ponk ak benn waaye fukki ponk ak benn yooyu dinañ ko xaaj ñaari pàcc ci diggante pàcc bi nga xam ne suñu borom dénk la ci résultat yu am solo car macha allah waaye ñaan bi itam yaa ngi ciy def lu màcc ay ndax suñu borom daam lum la ci dénk ay xar baax euh, am na lu mu gis nag dinaa ci yaatal bu baax a baax président Ousmane Sonko bëgg naa ñu waxtaan ci ndax gis na fu mu doone président 2024 wala am na gàllankoor yu ko ko ci xañ loolu lépp lu ñuy waxtaane la ku déglu di nga fi dégg ay révélation yu am solo dama bëgg ñu dellusiwaat ci seet bu leer nañ bi nga xam ne nga koy def te mu wër nit ñi di koy waxtaane waaw fa tabarakallahu bala ñoo ñëw si loolu ñu ne abtadi duaayi bi bismillahi arrahmani rahim bismi ilahi أبتدي دعائي ومهربي إليه والتجائي حمدا له بعليه منه ولا يفد الخير إلا عنه فنحمد الله على نعمائه حسنا بخير أوليائه الحمد لله على كل حال الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبده ونبيه ورسوله bu ko defee di ñëw ci wàllu question bi nga laaj muy wàllu maanaam seet seet bi nag moom euh, nekk na loo xamante ni dañ koy def ci ramlu ramlu nag moom ay tomb la bon amee turu nit ki incha allah ñu tomb ay mbiram bu boobaa lum ci wax nay nekk jàmm mu am yeneen xeetu seet ci wàllu listixaar ak tabiya ki rawxaan ak biddéew yooyu yëpp ay xeetu maanaam seet la ma koy woowee seet général ndax du bàyyi dara ci mbiru doomu aadama te lépp loo xam ne gàllankoor na nit ki mu faju fu ne jaaxle lool ci boppam wala mu bëgg a xam lépp ci ay mbiram wala mu am jafe-jafe yoon wala jafe-jafe wala jafe liggéey wala feebar bu ko jaaxal ci boppam lool bu ko defee bu defee seet général sëñ Cheikh dañ ko mën a wax mbir mi fii la te lii nga saafara amaana mu am tegtal yoo xam ne buñ ko ko joxee mu def ko yàlla jàppandil ay mbiram bu taxawalee sarax bu koy gàgganti ñu wax ko bu aajoo ñaan ñu def ci wàllu kurus gi ñaan à distance riyaada xalwa kurus gisuma lu ko ci gën a gaaw fa tabaarakallahu al ajla al ajla sariatan tarfatal ayn mooy ñaanu kurus dafay gaaw as saatan ci saa si itam waaw <laughs> loolu am na waaw bu ko defee loolu ci tënk rek ci wàllu mbir yi ñuy def muy wàllu science suprême islamique muy science yi nga xam ni ñoo féete ci càppaandaw li ci mboolem xeetu xam-xam ci wàllu ñaanukaay yàlla ci lislaam mooy alxuraan ak sunna ak tur yàlla yu tedd yi ndax yàlla moo ne wa lillahi al asmaul man ma moom tuuri ñoom ñooy man man maay ñoom fat uuhu biha wadaru alladina yulhiduuna fi asmaihi sayusoon maa yamaluuna woo leen masi ngeen bàyyi ñooñu di sikki sàkk ci sama tur yi bu ko defee mu dellu ne adaa aw ni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen bu ko defee yeneen bi sallallahu alayhi wa wax bu nit ki ñaanul yàlla sax yàlla mën na koy faf mere kon nag loolu lu mat a xel la ah. am na solo acca dañuy dox ba léegi wéyal jàll ci beneen ponk lu bokk ci jaaro yi donte nag ku ma dalal da ngay waxtaan ci jaaro waaye jaaro yi ah <laughs> mënoon nañ koo bàyyi ak yow de ndax say jaaro moom li ci dëxëñoo ci njëriñ <laughs> bëri na de kaan macha allah waaw jaaro bi ñuy liggéey <laughs> muy jaaro bi nga xam ne moo féete ci càppaandaw li ci mboolem jaaro yi muy jaaro daj dëpp jaaro jooju moom sañ ceex daanaka lépp ngi ci jaaro bi ëpp na ñaar fukki njariñ mën naa feen kasiiran jaaro jooju kenn du ko takk di ñàkk alal kenn du ko takk di yootu dara te du ci jot kenn du ko takk di wuti taaliban taaliban risque te du ko am kenn du ko def ci commerce te du barkel wala du dox kenn du ko def ci oto ba am ci gàllankoor wala kër kenn du ko yor te doo am soxna wala doo am njaboot doom sax da koy maye jaaro ji daal njëriñ yi dafa bari wàllu alal wàllu oto wàllu kër wàllu tabax mm-hmm. yooyu yëpp jaaro bi da ciy dox wàllu maanaam business ngay indi ay conteneur ngay jaay muy dox mm-hmm. jaaro je da dox waaye ci wàllu kaaraange cat lammiñ bët bu aay liggéey sëf mm-hmm. pexe noon bañ yooyu yëpp jaaro ji da dox jaaro ji daal moom am na kaaraange am na jalbu amna dafu am na tamit yeneen mbir yu ci làmboo ci wàllu ilmu rawxaaniya nga xam ni ak wàllu bidéew mm-hmm. ndax boo koy liggéey di nga xool mbiru nit ki mm-hmm. xam xeetu per bi muy méngool ak ban couleur ak ban jaaro moo doxal ay mbiram nga dokk ko liggéeyal mm-hmm. bu ko defee jaaro ji moom <laughs> mooy jaaro ja nga xamante ni daanaka du ñëpp lañ koy jox te itam dafa am limite luñ koy liggéey ci at mi te am na période itam buñ koy liggéey boo xasee wees moom kooku da nga xaar ba déwén loolu am na ci jaar bi. kon moo acca ñu dox ba léegi wéyal jàll ci beneen ponk damay ñëw ci examen concours yi nga xam ne itam euh, saa su nekk nit ñu ngi ci jëflanteeg yow waaye ñu ngi ci gis seen bopp ci la bëgg ñu dellusiwaat bu baax a baax. waaw wàllu examen concours yi moom dañ may dàqantale sëriñ bac ndax bac bi jib si na te ñañ defaloon daaw ñëpp am ren ji dan dañ ñoom fañ daan jaar ak ñoom bu yàlla nangutoon la mais te lu wër la itam ndax wàllu examen concours bac diplôme moom ñi ñu ci jëflante ku ci nekk da ngay am am na tur yàlla woo xam ni lépp loo bëgg sëñ Cheikh buñ ko ci doxoo ñu def ko ci yaati zaalika ma art loolu daf lay dikkal bac bi moom danga ko wékki sa biir nekk loolu wër la mu am yeneen wàllu këyit ku koy wut nga nekk bitim réew wala fii ci réew mi ba ci passeport visa tukki wala nga dem ci réew bitim réew wàllu séjour documento wala séjour italien wala portugais wala états-unis ba ci green card kooku ñañ ci jëflante loon ñëpp incha allah yàlla sottal na ko tubaab bi moo lay woo ne la nga ñëw jël say këyit donte nag dan la bañaloon loolu am na ci xeet yoo xam ne ci yeneen façon yoo xam ne dañuy delloo mbiri ginnaaw ndax anna allaha huwa al mubdiu yàlla mooy ki tàmbali woon wa annahu huwa al muiidu mooy ki mën a delloo ginnaaw itam tur yàlla boobu muiidu képp ku yàqule mën naa leen ko baaxe dañu am fu ñuy jaar ak moom incha allah mbiri dañ koy dëpp dafa mel ni kaset nga arrière ko rek waaw ndax nee na moom euh, nit ñi nee nañu ndax danoo yaakaar ne buñ dee yàlla du leen dekkil <laughs> yàlla ne bal <laughs> certes loolu dañ am de ndax am na noo xam ne moom moo tàmbali woon yëfi te delloo bi sax moo gën a gaaw defar gi xanaa xamoo nee nañu li ngay inventé invention moo gën a metti ak defaraat la nga mësoon a def nga ñu ne defaat ko ak loo mësut def def ko lu ci gën a yomb <laughs> mu ngoog kon nag defar bi gën a dañu am ñoo xam dañuy wax yàq moo gën a yomb defar déedéet defaraat moo gën a gaaw ci yàq <laughs> waaw ndax annahu huwal mubdi huwal muiitu te yàlla moo ko wax kàddu yàlla la moo ne defaraat gi moo gën a yomb defar gu njëkk gi waaw loolu loolu nit mënu ko weddi <laughs> fa ma ñëw ci bayre bu sax sàpp bi nga xam ne yaa ngi koy def waaye boole kook kaaraangeeg ubbeeku bi nga xam ne uh, ku nee naa la di nga ubbeeku ci lépp lu mën di doon bayre bi waaw xam nga bayre naa saf ñëpp ñëpp saf ma <laughs> mu ngi fi naa saf ñëpp ñëpp saf ma koo koy bayre bi waaw da nga saf ñëpp waaw am na loo xam ne sëñ Seex wax baaxut kenn du su ko wax bu ko defee mu ngoog am na foo ne buñ ci jaaree da nga saf ñëpp te ñëpp daan la saf bu ko defee mu am yeneen xeetu bayre yi neexal yaram bayre wërsëg bu ànd ak bayre boo xam ni da ngay mos day tege sam loxo waaw loolu am na solo ndax bare ñu fi am bayre ñu yaakaar leen dara doo ko fekk ci poos bi waa la garmi la na fekk loxo bi gaaw ci poos waaw bu ko defee mu am yeneen yoo xam ni ay wàllu bayre njaay ay bayre xëcc bayre bukki bayre jigéen bayre palaas bayre événement bayre buzz yooyu maa ko fiy leeral ak bayre siiw ba tey bokkul siiw dafa am tur yàlla boo xam ne buñ ko liggéeyee sëñ Cheikh donte gune gu ndaw la mu jëfandikoo ko dafa am bis boo xam ne dañ ko dégg fépp te ñëpp dañ ko ràññee itam te dana siiw dana leen ko dégg dana am ndam mu am bayre tubaab bi maa ko fii leeral lan tarda ankal yahudi wala nasarani hatta tattabia millatahum dun am ci yow mbëggeel ak copte nga topp leen waaye ñoom ñooy wëññeeku topp la waaw fa lillahi alhamd loolu sant nañ ko yàlla lu wër wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis bu la yàlla defalee ngëneel na nga ko wax loolu ngëneel la bayre boobu mu ngi fi waaye nag doo ci boole ay karaw tubaab de innahu rijsun ñoom sobe lañu seen karaw sobe la man bu ma gisee sëriñ buy jël alxuraan di ko boole yéen yi man na dama naan xamul alxuraan laa laa yamassuhu illa almutahharuun kenn warta aaya alxuraan wala alxuraan ci boppam wala xaraf sax laa la wax ci alxuraan te seetloo seetlaloo ba di jël nag lu ci bokkut di ko ci rax waaw foofu nag la nit ñi war a ràññee sëriñ ak njabarkat bu dee sëriñ la nit ñi bëgg sëriñ saa ngi nii bu dee njabarkat lañuy ñuy wut nag nañu seeti keneen du docteur wat alxuraan duñ ko booleeg leen tur dun ko booleeg leen gis nga ni yére yu ñu sol nu mu weexee tàll lu weex tàll lañuy liggéey jox la waaw ci ateen ci musluwaay mu di kaaraange ubbeeku ba sax sap bi ki ma dugal woon xalwa mu ne ma sëñ bi nag maa dugal xalwa mm-hmm. nga woo ma ne ma génn nga xalwa ma génn tiim dexu meew di naan rek ko meew mu ngay naan alal la weex tàll dara gokk ci ma dexu wee dexu meew laa rek di naan ko la dafay ñëw te day sotteeku fa tabaarakallahu bu ko defee nga dikkaat sa laaj boobu <laughs> dafa am loo fàttali waaw wàllu kaaraange wax nan la mi ngi ci jaaro yi de jaaro yi. Mm. am na secret boo xam ne buñ ko si liggéeyee si jaaro ji du dara loo xam ni dalay lor lu jëm si ceew mu am yeneen xeetu kaaraange miina gi nag dafa am ñaari doos xam na loo gis dafa am doos mm. am na laalaake am na miina miina bi dafa am boo xam ni yaxfazaka allahu min kulli shay'in taxaafu alayka yàlla dalay aar ci lépp loo ragal jëme ci yow mm. mu am boo xam ni yaxfazaka allahu min kulli shay'in yuuzika boobu nag moo gën a moo gën a encore xóot mu am yeneen xeetu kaaraange yoo xam ne dañ koy liggéey léegi ci xalwa dañ koy liggéey ci xalwa jël sa tuur adat ko xanaa xamoo tuur doomu aadama boo gis sëñ Cheikh am na saaru alxuraan bu mu jàpp turu doomu boo gis am na turu yàlla bu mu jàpp turu doomu boo gis am na reen ak sunguf bu mu jàpp buñ jëlee sa tur ñu tënk ko adat ko rawaxaan ba sax mën nañ ko génnee tur bi dafay am rawaxaan day am xuddaam luñ bëgg liggéey ci yow ci lu baax mm-hmm. ci rawxaan gi lañ koy jaare luñ bëgg liggéey ci yow ci kaaraange ci défense ci euh, ci xuddaam bi lañ koy jaare xuddaam bi nag moom tiichun la mm-hmm. kooku ku ñu dóor da am am problème rawxaan yi ñoo sant yaa yiil waaw bu ko defee nag ñu yem foofa ci mbir yi incha allah waaw ci wàllu kaar damay ñëw ci ubbeeku am xaalis bu bëri am ay kër ak i oto yooyu itam euh, doon na loo xam ne jamono ji toll nit ñi bëgg nañ ko ba fu nekk mu ñu ngi fay dugg. waaw wàllu am xaalis am na lu ma fi baaxee woon ndeysaan jigéen ji woo dama fi ne ma sëñ bi ba nga ma joxee loola dama ko def. maa ngi nekk ba Angleterre war a ñibbi si Sénégal. Mm-hmm. Gambie Gambie. ma woote sama tata dama def ci kër bi rek wax ma sa numéro compte ma dugalal la xaalis bi ci nu mu gën a gaawee loolu moom doo ko def ñaari fan te duñ la jox xaalis kooku secret xaalis la bu dee nag nga bëgg dëgg dëgg dëgg alal xam nga xaalis ak alal ba tey du benn bu dee alal nag nga bëgg kooku foog nga jokkoo ak sañ wat ñu jël sa tur tënk ko dagg génnee mbir yi génnee sa rawaxaan liggéeyal la ci turu yàlla génnee la say sarax alal bi daf lay dikkal da nga toog ci alal ci jotaay te ak donkaasi gi oto ak kër <laughs> wa maa indakum yanfaddu wa maa inda allahi baaqin maa uridu minkum min risqin wa maa uridu minkum an yutimuuni inna allaha huwa arrazaaqu zul quwati almatin nee na laajuma leen alal de man yàlla man maa leen di wërsëgale in haaza la risquna maa lahu min nafaadin déggal loolu nee na in haasa lii mooy sama alal maalahu te xoolal maalahu boobu almaalu fa la génne muy xaalis dégg nga li ma wax de min nafaadin amul ku ko mën a maanaam fànq wala effacé inna azaaba rabbika la waaqiun maalahu min daafin bu la yàlla na lay sotti da ngay yéemu ci yàlla ay oto ki kër yi nii da nit damay woone ma sëñ bi ba ma jëflanteeg yow waa ji yëkkati na terrain bi jox ma fi ma toog nii man am na client yëkkati ay terrain jox ma ndax dañoo amoon ay mbébét di ko dox ci suuf mbiri yàgg lool sottiwul ban ma woowee du saafara bu ma leen jox lu sangat bu ma leen jox wàllu kurus gi rek mu ne ma ah sëñ bi baa loolu dina sotti man de fu ne jaar naa fa ma ne ko sëñ bi day sotti semaine matu ko mu woo ma ne ma jot nañ ci hectare daggal naa la ci lii kon kay loolu lu yomb la fa yàlla waaw bu ko defee nag euh, loolu moom ay oto oto Seyyaara Seyyaara 516 la. Mhm. adadu oto. 516 la mooy Seyyaara kooku nag am na turam boo xam ne moom buñ ko déyee borom daal <laughs> bu ko doxalee moom du yàgg oto bi ñu ne ko oto baa ngi nii waaw yàlla nag bu ma dagg tur yàlla ba ba dugal ci sa tur boole ko tur oto bi. xam nga ndeysaan suma booy bi ndeysaan mas na maa ne sëñ bi yow yow sëñ bi yow da ngaa tey man ko déet waay ëpp naay def ndax dama ko laajoon ban oto nga bëgg mu ne ma ma jël tur yàlla rek dagg dugal ci limousine kese teg oto bi ñoo gaare ñu waa ji dugg ba place bi nuyoo si waa ji nuyoo si yaare ñu won ñu caabi yi ma ne ko limousine ma waaw ma ne ko boy bi ma ne ma man de damaa yéemu yow limousine bi léegi nga ko liggéey ñëw na fi ma ne ko bu ma ci defoon sa tur nga moom ko mu ne sëñ bi da ngaa juum ci bopp bi waaw ah, waaw moom nag buñ ci boolee sa tur moom kooku kay da koy moom waaw bu ma ci boolewoon tur gi waa yëkkati caabi jox ko waaw <laughs> kon nee naa leen moom dafa yéem te am na lu ko suñu borom dénk nee naa leen euh, li doon problème bi nag <laughs> da ciy dóor ay code de ndax <laughs> koy xalam di ci jaaye code yi rek la doon bàyyi acca ñu jàll ci beneen ponk yaatal damay ñëw ci yaram yi nga xam ne dañuy metti mettitu yaram yi loolu ne ci yaram yi di metti dafa bëri ndigg li bopp bi fii tànk yi yaram mi daal li metti ci yaram mi bëri na ñu ñu dellusiwaat. waaw koo xam ni. dafa accidenté woon ndeysaan. koo xam ne dafa accidenté woon. Mm. te ndeysaan juge yi gën a mag ci réew mi <laughs> kenn ki doom la waaye sant yàlla rek oh. loo gis sutura la du lépp la mën a wax mm-hmm. waaye day nee na ma nee nañ ma danaa bàyyi beekee léegi waaw ko kay te du lu ma bind te du lu ma bind jox ko du lu ma yónnee jox ko kurus gi rek jox ko tegtal yi ne ko defal nangam kooku kay boo demee ci témoignage yi sama TikTok da nga ko fa dégg waaw loolu moom ay détails la cest que ñun duñu wax nit ñi ñoo ñuy waxal waaw te ñooñe ñëpp nga dégg ci témoignage ci wàllu kurus gi la ak ay tegtal lan leen saafara seen mbir waa loolu ku ku mën jarut jarut sonn gis nga yuuxu gii ak wax lu bari gii dal gee ko gën lay sa wërsëg danga lekk dana tege fii in kaana rizqi fi samaai fa anzilhu ilayna wa in kaana fi lardi fa uxrijhu ilayna wa in kaana bayidan fa qarribhu ilayna wa in kaana qariban fa yajalhu fawqa yadi wa in kaana qalilan fa kassirhu lana wa barik li fihi haysu ma kaana wa haysu ma kuntu toog muy dox dañ ne amul secret bi ku ko liggéeyal mboole ko tur yàlla ak rawaxaan yi muy àndal kookoo toog muy dox day ñëw téere xaalis bi waxuma la ko ah, am na téere xaalis ah, mm, moom toujours xaalis tege sa loxo am na boo xam ne sam jaaro bi am boo xam ne reen gi la nag reen bee gën a saf ndax reen gi tam moom daa saf saf moom mën na ko liggéey moom da ngay sot xaalis bi day ñëw ci yow ba da ngay tiit waaw loolu am na boobu <laughs> boobu kay moom beneen mbir la waaw boobu mbir la waaw boobu boobu ñun ñoo koy sàmp waaw boobu sàmp bi la <laughs> waaw ñu dox ba léegi wéel jàll ci beneen ponk dinaa ñëw ci lu ci mel ni néew kàttan mu di nguura laata may ñëw ci nopp ak noot waaw néew kàttan xam nga dafa am ñoo xam day ne neem waaye damaa woo ne ma six mois mbir mi dana neem oh. ma ko nàngam jege na la mu ne ma jege na ma kay ndax fii loolu am na fii ma ko wutal nàngam bi nga diw ko ci sànni ko fële mbir mu danaa ndeng dafa maa woo ne man de fajar ba léegi mbir maa ngi taxaw ma ko loolu tegtal dong la bu dee nag dañoo gis nan laa takk xala wala ñu liggéey la wala ñu am yeneen gàllankoor yi ci laxasu wala seytaane kooku dafa am fu ñu koy jaare ci kurus gi ñu dàq ko mu dem nga am jàmm ñu baare ko itam du dellu si mm-hmm. ndax am na ñoo xam ne mën lañ lay jox sunguf oh. ngay naan sa biir bi di gonfler rek mbiri doo ci gis dara ngay gën di sonn am na koo xam ne damaa ne ba sunguf bi keroog laa gën a a teyal damay yendoo nelaw ba bërsën ma ne ko loolu du jàmm ku lay faj yokku la jàngoor ñun duñ la jox nga naan duñ la jox nga kurus gi la ñuy jël def li ñuy def yaram bi oyof tooy mbir yi ñëwaat palaasam mu am boo xam ne pontacier bi la kooku à distance la dañ koy daaj mooy daj dëpp gi weñ gi la alhadid manaafi an kooku njariñ la goo xam ni maanaam buñ la liggéeyee kattan googu moom boo yeboo. moom moom soxna yi moom nga teel nga nga ne leen jama nga ne leen damaa jaaroon ci sëñ wat loolu leer na waaw mu am ñaambi gi mu am ñaambi gi ñaambi gi nag moom kooku du yab sa jëkkër kooku mooy doo yàpp sa jëkkër ñaambi ji la kudd gi léeg la da ciy waaw bu boobaa dañ la wax sax lii lu mu doon ndax na muy toll. waaw waaye nag ñaam bi dañ lay wax nga wut boo xam ne yàgg naa wax naa ko fi benn client man ma dee leen man bu gën a mag bi laay wut man ko bul def mu ne ma def ba ko defee damaa ne fi mu ne nii de soxna si damaa ne day dem seen kër man ko ëpp naa def xaaral ma defal la loo xam ne dana toog ndax yaa indi sa bopp musiba wutal wutal bu yem nga dem wuti ñaam bi gën a rëy ci ñaam bi kay santuma la ko nag waaw. ba léegi wéyal jàll ci beneen ponk dama ñëw ci noot ak nopp ñaari it bëgg naa xam lan moo leen wutale ak seen njariñ. waaw noot ak nopp bokkul xam nga nopp moom. Mhm. wàllu mbëggee la ko tax a jóg. wala loo xam ni cofeel da ciy am. al utf mhm. ar rauf waaw ar rahim mhm. waaw yooyu moom al wadud al mahabba hubban yooyu yëpp am na ci ak ay maanaam wàllu maanaam xama rek ak barnaaxu màggal waaw yooyu yëpp xam nga bokkul wég la màggal la daraja sopp la bëgg la am ci yooyu cofeel yooyu yëpp ay degré la te benn bu ci nekk am tur yàlla bu ko sax a jóg mu am loo xam ni boole la jàmm u am na ñoo xam ne ñu ngi dox ci wàllu bëggeel waaye ñoom duñ ci def cofeel ga dañuy def boole gi rek te boo boolee ñaar ñu bëggantewul indi nga musiba waaw ah? boo jëlee muus ak nga boole andi woo musiba waaw mu ngoog faaw nga boole ci nag ba koy safar waaw moom am na jumbo ji mu am yeneen yoo xam ni wàllu lonk gi la koo xam ne da ngeen waroon a sëy wala ngeen waroon ànd mu bëgg lay wor buñ ko dugalee ci lonk gi billahi alladi laa ilaha illa huwa dama koo waat musuma ko cee waat dana doon sam soxna te dana fanaan sa ginnaaw neex na xaritam ndax dalaal daa lekk sam alal ne dalaa bëgg na ko dëggal tur woowu da koy dëggal de loolu leer laa la ku bëggut jabar moom bul laal boobu beneen bi moom mooy boo xam ni ah waa ji ndaw si moom dana la topp de dana la topp topp goo xam ne dana la yem ci yàlla na borom di toppee xaj loolu am na ci secret yi mu am yeneen yoo xam ni pour gàgganti comme na ma la waxee sëy da nga gis ñaar ñu bëggante ñu yàgg lool oh. te sëy mënta am te ñëpp kenn du mën a xam lu doon waaw loolu niir day am maani day am empêchement waaw am na ñoo xam ne xanaa xamoo bu ñu yegee diw day takk rek mën nañ cee def maan ñu ñu empêché ko du du am gàllankoor day yam waaw mu am loo xam ne sax nit bu la tàggu day tukki man xam nga joxe naa tur bi léegi muy maan yi mhm. beneen bi xaabidu la mën nañ cee def xaabidu dootoo dem tur yàlla la alxaabidu nit bu la ne damay dem aéroport la jël avion am na noo koy daggee nga ko dootul dootul dem <laughs> demati kay du ko defati tur yàlla la juróom-ñeent fukk ak juróom yàlla yi benn bu ci nekk am na lu muy liggéey waaw xaabiru dana tëjlu sax nit kaso xaabiru dana dugal doomu aadama foo xam ne waaw mu ngoog loolu moom nañ ci yem sànceem bi nag kenn tuddagu ko. <laughs> il faut gars yi am fu ñu àgg pour mën koo xam. acca euh, dëddale ak boole. waaw déddale moom. dagan la ndax bu fekkente ne danga am sam doom. nga yar ko ci ay loxo yu baax. ba mu toll fa mu war a toll. war a dem sëy wala boog jàng nekk ci ay yitte. am ku cee bëgg a détourné. te d'accord ci doo leen déddale ku dem kii day jaar nii kii jaar na le lu leer laa la wax oho bañ ko ne bàyyil jabaru jàmbur ñu ànd ba police waaja ne fa di bu kuri kuri ba ma wooye damaa ne <laughs> waaja waaja génn dëkk réew mi sax la faf génn loolu am na ñaf rek bul yërëm am ñoo xam ne moom hmm. bu ñuy dox dox rek moo dafa am ñoo xam ne wax taxut wax taxut te digleel yàlla la sax hmm. wa in raa faaxishatan aw munkaran boo gisee loo xam ne mbiru say euh, faaxish la naafeq wala munkar wala lu neexul wala lu naqari fal yuxayyiru bi lisaanik waxal ak sa làmmiñ boo ko mënut aw bi xalbik nga wane sax bëggoo ko aw bi mu bi yadik dóoral ak say loxo ba tar man kay boo fi indee koo xam ne tooñkat la wala am waxambaane wala daa sàcc xanaa yàlla ma ëpp yërmaande <laughs> da ngay dóor dóor yu metti mu dem yoonam man jigéen woonama fi ne ma daal sama doom ji daa am ku mu topp jàngatul bàyyi ne dugg na fi génn fii lu bon lii ak ñu bon ñii lay àndal ba na ko nee na ma de copain yi dañuy woote sama mën leen j'ai pas temps amul seen temps. <laughs> waaye xalaatuma waxtaan ba pare te dugguma ci mbiram tukki. waaw tukki it bëgg naa nga am loo leen ci mosal. waaw wax nga lu am solo wax nga lu am solo ndax réew mi dëgër na dëgër goo xam ne jamono yii gune dem rek lañu gis. dem rek lañu gis. bu njëkk nag daan nañ ma fii ne ma gaal geeg dugg fi génn fi ma defal leen kaaraange ba ñu yegg mais loolu dama koo ba nañu jël yoon wax ndax maa ngi dugal ay nit ñuy dem ci ñaanu yu tegu ci yoon muy ambassade wàllu kayit hmm, hmm. nga jaar ci yoon dem ci ambassade comme sëñ ba da fii te boo demee da ngay am looy wuti ci gaal waxuñ ko ngir waxal suñu bopp déedéet hmm, dañ koo wax ngir jaamu yàlla yiy loru ci ndox mi mu dakk visa mhm. du fii ngay ñëw ñu ne la recité na amul lañ fa yóbbu ci ay doomu ci wàllu tukki mhm. ci wàllu visa ci wàllu mu sotti këyit wala nga dem ba foofu xam na ñoo xam ne ndeysaan dañoo dem ba foofu tànk wa ñuy duggee réew ma ñu gàllankooru faf waaw te am na tànk woo xam ne boo ko duggee am réew say këyit mën naa yéex loolu yëpp ay secret la moo tax saa su ne nit ki war di diisoo ci ay mbiram waaye nga am sëriñ ñaanal visa rek nga dem ni fàtte ba mu ma ma ne ko ba nga yeggee la ma la waxoon néew ma la boo yeggee woo ma waaw defoo loola nag moo indi lii waaye nag dana deñ dañ koy dindi waaw tànk ba nga duggee réew ma moo baaxut réew boo cay dugg mën naa leen baaxee mm-hmm. ak kër ak fu mu mën na maa rabbana anzil alayna maidatan min as-samaa'i kooku mm-hmm. dafay yokk wërsëg baax na waaye rabbi anzil nii munzalan mubarakan kooku tamit dafay dimbali nga am njaati gi mm-hmm. dana la yombalal tam kayit yi ngay dox ah. yàlla gën cee def tawféex mu am yeneen secret nag moom dañ koy noppi ndax yooyu moom ay tur yàlla la yoo xam ne moom def delloo amu ci laa radda daawati wala tubdaa masalati yàlla du delloo saw ñaan waaye du seetaan say mbir bu ah, ci kenn dugg fenn yëngal fenn ba mu dëgër nga yaakaar ne mënoo ci am solution ndax soo jokk ko kii di docteur Mouhamadou Wat di nga ci am tawfeex rawatina ñu bëgg a tukki amal say papier yëpp ba mu mat rek nga war a déposé ji ñëw jaar ci moom dina am nu mu def ak yow soxol dina sedd guy acca fa ma jeexale bokk na ci xew-xew jamono est-ce que gis nga foo xam ne sëriñ kii président Ousmane Sonko ci boppam ndax noonu lañ ko mën a wooye dina falu en 2024 waaw li ma waxoon ne moom ma ngay bëgg a am newoon naa ñaar ñii duñ bokk élection Macky Sall ak Ousmane Sonko duñ bokk élection. wax ji daal da koy dëggal daal. Ah, li ma wax daal leer na te sénégalais yi xam nañ li ma wax bu baax ñaar ñii duñ bokk élection waaw dana am ku ci toog de bu Sonko demee. Ah. Macky du dem léegi wax ji da daal wax ji doo ko toxalagut. non toxagut waaw fi mu ne nii moom ah. coolee ci des rek mbiri ne kuur sénégalais bi na ñoo lank nguur gi ne ñoo lànk. gis boog sa cheikh bi. ah man daal li ma la wax. nee naa la outsider dana ci am. maanaam surprise. dana ci am de. ci élection yi ñu jëm nii. la war a doon comme naa la xamal leen yàlla daf yàlla daf leen bëgg sopp leen. dana leen fi teg dana leen fi tegal ku baax. loolu ku baax Sénégal dana ko am. ku ñëpp xam la ah Sénégal daal dana am ku baax. te bu génnee tam dana am ñu ko xam. te danañ xam ni kii. Ah. war na mën a yor réew mi. ah <laughs> mi ngi ci tànk de. Hmm. waaw ndax am na ponkal bu ma fi waxoon ay jamono. ma nga ci suuf di am poulain bu muy préparé. Hmm. xam nga waxoon naa ko fi. waaw dee leen bàyyi xel ci li may wax. waaw bu ko defee nag moom am na ñoo xamante ni ñu ngi fii li ñuy wax gëmuñu ko. Hmm. wàllu troisième mandat. ak ñoo xam ne li ñuy wax duñ dañuy dem force. yooyu yëpp am na mbir mi fu muy yegg ci cappaandaw li. lay tëdd rek kay am te Sénégalais yi moom. dofu ñu xam na bu ci tolloo. ko ñuy jox réew mi am nañ nag lu leen doy. ak lu leen doyul ci nit ak jikko fa laa mën a yem. Ah, ki nga gis moom surprise bi moom baa du président kii rek baa du Karim Wade. ah man daal tudd ma aw tur. ndax xam nga jamono yi tudd aw tur rek. ku ko def ñu boole la ca naafeq wala boole ñu am na foo fare. rek maanaam loo gis rek xam-xam la waaye xam nga xam-xam. nga du lépp a wax. ndax xam-xam am na luñ la ci may nga wax ak luñ la ci may nga noppi ko ndax xam lépp wax lépp baaxut. waaw junju gi daal leer na sénégalais yi moom ah. xam naa len la ah. ñoom am na luñ taamu hmm. ci nit ah. pour jox ko réew mi n'importe quel déedéet nangun loolu <laughs> loolu moom lu leer la bala nga tàggat in uridu illa islah wa ma tawfiq illa billah wala allah falyatawakkalil mutawakkiluun hada asalaamaaleykum wa rahmatullah